ngir taxawu leen ci seen wàllu wér yaram ci anam yu mucc ayib ci biir dëkk bu sell bi di Touba waaw loolu dong mooy bëgg-bëggu clinique mix Cheikh Abdou Lahad Mbacké ñi ngi nekk fii ci Touba 28 waaye lépp lu ngeen di soxla ci barabu fajukaay am na fii dale ko ci service ophtalmologie di traité cataracte wala bépp lunette bu ngeen yittewoo te mu méngoo ak seen i bët consultation waaw bu dee suñu service médecine générale nag lépp lu ngeen soxla am na fi consultation hospitalisation ba ci suñu service de maternité am na CPN accouchement échographie waaw ba ci service d'hémodialyse fii ngeen koy fekk ci clinique Cheikh Abdoulaye Mbàkke muy barab bu dal xel gannaaw seen jëflante kilifa dinay takku ku ci mel ne Serigne Mountakha Mbàkke xalif général kullu murid waaye Serigne Amsatou Mbàkke moom Serigne son waaye kilifa yi ngànk wàllu wér-gu-yaram ci biir réewum Sénégal dëggal nañ lu libel 24 heures sur 24 ngeen fi fekk suñuy service de garde ngeen mën a woote ci numéro yi 33 978 61 05 wala 76 638 38 23 wala 76 638 38 22 wala 76 638 38 24. ak clinique mixte Cheikh Abdou Lahad Mbacké nekk fii ci Touba 28 seen jafe-jafe jeex na ci wàllu wér-gi-yaram.